haye gorko haɓɓano naye salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV waaw ba léegi rek ñu ngi Grand Yoff ah, ah jigéenu baari baari yi ñu ngi fii nag Grand ah, doon doon seet si baari baari waaye aussi fekkaale fi ki nga xamante ni tey moo di Fouta yaakaar na tey ku ne baari baari ne Fouta moo ko lancé ah, am euh, rôle bu am importance bu mu joué si carrière waaye avant rek dañ koy dalal moom Fouta ah Fouta production en tant que promoteur waaye aussi en tant que membre staff Bari Bari maa ngi lay bëgg di la boo Bokar maa ngi lay fay gannaaw bu ma santa yàlla di julli si yonente bi di ñaanal samay ñaari waajur fi ñu tëdd yàlla na leen gënal fu ñu jóge bépp wow dawlu ba fa tëdd rek di nuyu Serigne bay si Mansour xalif général des tijaan yàlla yàlla guddal fanam may ko wér di nuyu sama mag bu góor sama mag jigéen di nuyu sama bu baax. di nuyu sama mbokk xaalpulaar yëpp kala bi yow mbi mbi maa mi rem bala salmin ma di nuyu sama waa koñ waa grand bu baax di leen siyaar waaw di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp kay bilaay baari baari doon bëri démb yàlla suturaal ko may ko ndam waaw ñu gis tey mobilisation bu am bu am importance bu mu def mobilisation bu bu mu def waaye aussi jënd lu tolloo 15 bloc bi te loolu yaakaar na ne ay mbëri nga fi tey di fayee ko ay kasewu 20 voire 30 ba 40 millions sax te vraiment duñ ko jënd loolu lan liggéey boobu liggéey lan waaw xam nga booy bi Bokar mooy li may wax rek tey jii nii wol ma Abdou wol ma Abdou wol ma Abdou Pada booy bi ñun préparé wuñu woon sax pour mu bëree dafa am benn booy boo xamante ne ba ma njëgee tëgg ñëw dañu ne foog ñu xool benn booy bu ñuy jël dugal ko ci affaire yi comprendre nga bu ko defee koñ bi mun a amaale mbër am benn phénomène bu fiy génn parce que gars yi dañuy dund làmb bugg affaire yi mais duñu am ku ñuy topp fii ci Grand Yoff kii la buggoon mu bëree après xam naa di nga ko jël moom la buggoon mu bëre toog wax ak moom ne ko pourquoi pas mënoo dugg si affaire yi ak sama beneen doom bi papa moom tamit bëggoon nañu mu bëre mais yàlla dafa dogal dafa voyagé woon newu fi woon boobu papa sax deuxième position la ñëw kii nag dem ba ci biir gars yi nekk fii di ko tooñ mbalak beeg affaire yi mun ne bëreetuma ci la papa ñëw ànd ak kii kii mooy Pape Sarr borom Grand Yoff mu ne ma damay bëre ma ne ko déet waay sa topp ma ne ma noo day bëre tëggu ko mu sonn si xam nga ñëw ma ne laa amu problème wutal ko licence ñu toppatoo ko wutal ko licence sa waay lijjanti affaire yi taxaw booy bi nag sonal ma si nag heure bu ñëwee ne ma damay bëree ma ne ko waaw doo bëree waaye danga fubali sa jàng mu ne non damay damay bëree affaire comme démb si man ci lañ ci dugg booy itam nekk ay booy yu jàmbaar wax dëgg yàlla joué si rôle solo li yàlla di def ñu teg ko si code jaarale fu ñu ko war a jaarale xam ne war naa mun a ub làmbo xëy na nag entrement bi ak doole bi munu see yàgg parce que mu ngi soog a ñëw mais loolu nekkul lu ñu yàkkamte parce que bu defee deux ans trois ans si entrement normal dina changé dina soppeeku mais ñu bëri xamuñu xam nga boo nekkoon jour nekk élève jóg rek dugg si làmb da ngay def ndànk mais man gëm naa ne dina ñëw mun na bëri am na waaw gis na aussi li yàqal mbër yu bëri mooy maanaam gars yi bëgg la booster maanaam bëgg la xalal yoon bëgg la aj te aussi gis nañ day yàqal mbër yu bëri yow en tant promoteur en tant que ku yàgg si làmb yàgg dund làmb comme ni ko waxee tey yaakaar naa day laajte ngeen mm, def ko ndànk-ndànk muy jël temps am combat yi lool lool maanaam ngeen xool ni ngeen def pour équilibrer ko ba maanaam mu mën a ànd ak ay mën a yéeg parce que sinon day daan ñëw ne diw laa bëgg diw xam nga xaw a fugu de sene mais damay xam li ma xam rek ne ko dalal parce que tamit ni nga koy gisee nii mun naa ne magul làmb yëpp ñu si bëri dañ koy conseillé ci lu bëri te man na ci bëri ñoom ne dénkoon nañ ma lu bëri ci moom dama doxel nii jëfel nii bu boobaa doo ko rëcc yaakaar naa ci lancé boobu laa nekk na def ndànk entraîné benn trois ans wala deux ans ba yaram yëpp miin bu ko gars yi gisee xam ne mu ngi soppeeku parce que nii sax mu ngi soppeeku si ñun ñu ko xam mais yow mi ko xamul da ngay jàpp ne mooy loolu mais ñun ñu ko xam nañ ne mu ngi màgg comprendre nga li ngay wax ni yëpp ñun bàyyi nañ ci xel ñu ngi koy teg si code ñu ngi koy jaarale fu ñu ko war a jaarale mais sànq da nga wax lu solo nekk na mbër boo xam ne tey day dugal mbooloo boo xam ne biir esaat tey néew na si moroomam mbër bu ko fiy dugal man de gisuma ko bu ma ko gisoon dama koy wax am na mbër ñu fi doon coow te lii laa leen doon wax te boo xar maa xam nga lu dugul moo ëpp barki Serigne Babacar si laajal ñuy toog ñu dugul ñoo ëpp fuuf ko ñu dugg parce que dafa am ñu ñu diggoon ay bolok dem ba ci biir foosé ñu loolu moo waral tardement bi sax ak yéex a ñëw bi. ak 15 bloc yi ngeen jënd yëpp. déggoo li ma la barki alxuraani karim ñu dugul moo ëpp xaw ma ndax wax na la ko mbala waxu la ko comme ni fii démb ba muy génn nit xaju fi kenn mënul jaar fenn pour dem moto yi engins fu ne la doom aadama di bàyyeekoo di ñëw mais loolu yëpp sant yàlla comprendre nga jaarale affaire yi tamit fu ñu ko war a jaarale mais lu ci kanam rawul bët xëy na yow laa siy mujj waxal na ko làmb bàyyi xel. day am ni ko père Bécaye di waxee phénomène la bu ñëwee lamb da ko war a bàyyi xel yàlla moo koy def si nit. comprendre nga te Grand Yoff yëpp fu mu toll nii amul mag amul xale ñëpp koy ñaanal ndax yaroom ak moom nu mu mel xam nga man mënoon naa toog wax sama waxu bopp mbala waxu leneen mais yaa ma laaj ci moom moo tax ma lay wax. waaw am na solo en tant que promoteur nag gars yi gisaguñ la mais yaakaar naa ne yaa ngi waajal am na looy togg di ko ruumandaat si suuf fan nga toll. waaw le 29 octobre la diggante Pokola ak Gakou 2 Bousse Jokkel Euh, Petit Lo Jackson Ibo bu Kër Mbay Fall ak Ñang Baalo Caatu Puyol da siy bëre ak Ama bu Malika waaw Batzo tam da siy bëre doomu Grand Yoff la moom it mu ngi ñëw. mais loolu gala la yow. non journée des espoirs la ay xale laa boole te tey dama décoré làmb joo xamante ne tey jii nii ay promoteurs yu mag ñu ngi woon ci làmb bëggoon ko mais mënuñu ko mais yëpp rek man comme li ngay wax rek teey daal ndànk-ndànk bañ a yàkkamte waaw parce que làmb ji tamit dama see ay millions yu bari. waaw tëbu ma tëb rek tëgg ko de dama jaar fi ma war a jaar di si ñaan yàlla yal nañu si yàlla yóbbu jàmm ñu fekkee ko total ko loolu mooy l'essentiel bi mais en tout cas daal ma juumul daaw nga ñëw dañuy gis nit day dugg si làmb yoon daw wala tëgg ñaari yoon affaire yi métti mu daw wala ay gàllankoor waaye dafa mel ni yow bi saytu nga business bi ba xam ah, ni muy doxee lim laaj yëpp nga maanaam nga nekk. waaw xam nga yow Bokar man mun naa ne sax ba may ñëw maa waxtaan nañ ci téléphone ñi présenté ma nga nekk nit ku baax am loo ma si dénk loolu ba tey mu ngi fi keneen ak keneen ak keneen noonu dama ñëw pour liggéey ñëwuma pour wut tur boo ñëwee pour liggéey da ngay xam li la indi ñëwuma pour xàññi ñëwuma pour doser pour wane na man lii rek ni ñi dañ ma war a xam doxewu ma noonu gis nga tey fi ma fekk nii ma toog nii laay toogee fii laa dëkk nii rek laay dundee sama mbokku promoteurs yi néew na ñu ma siy fréquenté du ma si sax fréquenté kenn parce que téléphone rek la ñuy déggante nii laay dundee nii laa mel parce que fi ma yoroo la fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa kon foog mu mun a wàccee sam kon boo demee fee yenn yi du la jaaxal parce que fi nga jaar la ak li ngay jot a xam waaw moo tax mënumaa ñëw rek dugg daw génn man yàlla dafa dogal yow ba may dugg gis nga fee saison la gaa yi lañ ma wax bàyyil ba déwén ma ne bàyyi ma dugg pour xam te loolu dimbali na ma ma am lu ma xam te yàgguma si laal làmb mais tey ay anciens yoo xam ne bu ñu toogee man tam ba ma waxee dañ ma naan li nga wax si yëpp dëgg la loolu nag yàlla moo koy def si nit des fois tamit nga juddoo yenn gox yoo xamante ne boo demee fenn doo réer day fekk yow nga maîtriser lu bëri xam ko mënumaa daw lamb ji si kattanu yàlla bokkar heure bu ma ñëwee da nga naan noono fu mu jaaraat ba ñëwaat ci loolu laa nekk ci lancé boobu lépp nag dénk lépp yàlla suñu borom yéene ñëpp jàmm xam nga boo yoree xol bu rafet yéene ñëpp jàmm foo bëgg yegg rek da fay yegg am na solo lan lañ mën a xaarandi côté spectacle mobilisation moom kenn di ko parce que mbër yi nga tëgg moom ay mbëru gox lañ daanaka da nga xool gox bu nekk nga sembi fa kenn tëggu ko te ku siy jóg gars yi dinañ ko sot gunge ko ànd seeg moom waaye xam naa ne làmb yëfu yëfu yëfu séeréer la alpulaar mooy tëgg jaamu séeréer loolu yaakaar naa ne dina am dina am culture dina am cosaan. Hmm, man sa buur laa nag bookar xam nga ñun ay noble lañ en tout cas daal maa ngi siy nekk di waxtaan ak booy am na affaire yu bëri yu ñu siy waaj ay spectacle yoo xamante ne tey jii nii ay artistes sax bëgg nañ leen fa indi ñu ñëw def affaire bu rëy indiwaat leneen lu bees yooyu yëpp ñu ngi si mais xam nga làmb dafa xaw a doy waar bu ñu xamee foo jëm rek doo yegg moo tax des fois foog ngay nëbb yenn yi ba jour ji nga mun a génnee wone mais jàppal na daal bookar am na yeneen làmb yu ñu doon a dox comme combat bi am demb rek yàlla dafa dogal sotteewul sama loxo feneen la sotee buggoon naa ko waa mais yooyu noonu yëpp sant yàlla rek am na leneen lu ñu nekkaat di dox bu sotee ñu présenté ko gars yi si jouru làmb ji te dañuy ñaan yàlla tamit mu sotti rek. lu rëy doon. waaw yàlla baax na daal yal nañu si yàlla yóbbu ak jàmm daal. non jarul wax bu ma waxee rek ñu yàqal ma def naa ñaari déclaration wax ñu dem suufu ma te jaratu ko léegi léegi daal may noppi def li may def si suuf quoi. fi may tëjee ak yow muy maanaam sa sa sa sa mën nañ sa père sa mbokk promoteur muy Luc Nicolaï tëgg benn combat moo tax si diggante Modou Lo ak Ama Baldé jafe-jafe yu bëri si tolof tolof yu bari si gàllankoor yu bëri si waaye taxul mu découragé taxul mu xaadi fépp fu mu yaakaar doole mu ngi fay wut doole di fa wut wàllu ngir concrétiser boobule combat tey en tant que promoteur tey sa sa sa sa conseil si Luc Nicolaï lan lay nekk avant maa ñëw si diggante ñaari mbër yi. xam nga Luc moom mun naa sama papa la sama lépp la tey def na ci làmb loo xamante ne tey kenn du ne guléet la parce que ndaanaan la di leen ñaanal yàlla rek bis bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñoom ak kii nu mën a tëddati alburax ñoom Baye Ndiaye yàlla yombalal leen lépp ba lu ñu bëgg ñu am ko si parce que làmb tamit dafa métti. mënoo yëkkati ay centaine def ko ci benn affaire. yaa ngi dégg ay nit toog fee naan làmb ji day amag du amag di wax yooyu pour man yooyu waxu jaxase la ak bañ a yéene nit ki jàmm ñoom ñooy bëre jàmm ak salaam dañuy bëre parce que dañoo lekk avance su jàmbur. Ama Baldé Modou Lo mais boo ñaata làmb fi jàll nekkoon dër bi bi jël xaalis dafa neexoon bëri coow te dañoo bëre mu jeex Balla Gaye Yékini bi passé rek amul lu mu deful si dëkk bi dañu waxante dëgg dëgg la nag combat bi la dañu war a daje bëree. waaye ak yeneen ak yeneen sax laal Balla Gaye Bombardier Modou Lo Bombardier Modou Lo Eumeu Sène Ama Baldé Tapha Tine yooyu yëpp ay làmb loon yu ñu doon coow mais après fu mu mujj jeexul ni ñu fàtte ko ñu ñoo bokk réew mi nañ ko bëre si jàmm si fair play beneen mooy bu waxat man dafa am affaire yu may gis si làmb yoom tam dafa may nakari quoi des fois da ngay gis yenn mbëru supporters yi kii foral Modou Lo kii foral Ama Baldé ñuy bëgg di dëndu dër di saagante xam nga di waxante lu ñaaw si ay làmb yoom ne benn takkusaan la pour man loolu da ko jar wala kii daan kii ñu ne supporter yi ñu fi jaar dañ leen di dàqal def li pour lan te ñun ñu bokk réew mi loolu lu ko si jar ñëpp nekk ay citoyen nañu dal te xam ne ndam li génnul réew mi ñaari doomu réew mi ñooy bëree kii jógewul Burkina kii jógewul Congo yaa ngi dégg que le meilleur gagne loolu mooy l'essentiel mais ay ñii duñu jaar fii ay ñii duñu aw fii yooyu pour man waxu tapet la ak waxu deuxième nañu bàyyi yooyu te bëri ko si fair play ñi bàyyi ñaari mbëri jëflante ama jàmm woote Modou jàmm woote xam nga lu ñu naan buur aayul dajee aay nañ jël affaire yi teg ko fee te ñaanal leen yàlla bis bi ñu dem seeg jàmm bëri si jàmm que le loolu mooy l'essentiel bi boo xam di sant nag saafu papa baari baari bi yëpp parce que xëy na nag man duma si dara lu am rek ñii la Bokar lu ji njaag ñoom la comprendre nga bugg naa nga jël sawaay moom it day sonn si moom comprendre nga di ko jàppale ci biir ak ci li mu mën mu ngi koy def comprendre nga comme day baax tamit bu bis yi nga présenté leen ñaaxaat booy ñu gën a góorgóor parce que soo walee fii lañ di réunion di waxtaan da ngeen di war a di teel a dem waroo leen di tas ñi waruñu toogee fii ñu war man li ma mun mooy gunge leen jàppale leen comprendre nga loolu mooy l'essentiel bi jox ko mu sandi si kàddoom waa moom mooy lépp baar yi. li fekk bëgg naa. waaw Bokar ñu ngi lay ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax. sama booy képp kuy fan si club Bari Bari maa ngi nuyu képp ku topp baari baari maa nu nuyu ndax booy son nan trop ci baari baari depuis xale ba léegi ñooy ànd quoi bu loolu passé rek moom maa ngi gërëm Fouta sunu grand la champion la ndaanaan la boo gisee li lépp am ci koñ bi ginnaaw yàlla moom la ginnaaw yàlla moom la quoi Arafat yàgg na trop Arafat yàgg na trop mais instant yi toll nii bu lamb dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dekkee garaaf rek Fouta moo tax lamb dekk Grand Yoff mais bu ñu woon a Fouta lamb du fi dekk wala lamb fayoon na Grand Yoff wax li wax nii fu leer laa ko teg lamb dëgg doxe woon Grand Yoff ñëpp découragé woon mais moo jog commencé jàppale booy jàppale ñëpp uf ñëpp moo tax lamb dekkawaat Grand Yoff papa baari baari moom booy boobu moom jàmbaar la ndaanaan la champion la lenn rek laa lay wax bookar baari baari ngeen gis nii booy bi nii bëreegul de barke Serigne Babacar si booy bi bëreegul na ko làmb bàyyi xel te xam booy xam ni am nan problème na ko booy yi xel xam ni booy bi bëreegul sax pas baari bari am na fit baari rapide na baari mën na bëre bari du arrière Bary noo mën di toll toll toll toll bu arbitre bi soufflé bu la jàppee mu jeex loolu ma ma neex si booy bi ba pare Bary dafa am yar jox ay grand frère am cër Bary bi mu nekkee xale bu ndaw a ndaw ndaw lan ma ko may maa moom boo maa ngi lang car rapide yóbbu ko fa jóge fa ànd ak moom di business ma xool booy bi fu man di dem rek day jàpp ay ponkal di leen daan ma ne ko Bary nan xool lamb ji xam naa ne boo ci duggee da nga am dara. football bi dafa yéex gaawul mais booy bi na ko booy bi na ko bàyyi xel booy bu takkee ngembu Grand Yoff son 7B Grand Médine Parcelles Grand Yoff booy ñëpp ay génn léeg-léeg laa ko ñaanal yàlla suñu borom may ko gudd fan ak wér gi yaram Asel Fall dafa daan démb mu may baari xaalis bu bëree bëri bëri ñu koy sand bu baax Asel Fall waaw jàmbaar a ngi noonu jigéen la ñu koy sand bu baax Grand Yoff gépp ñu ngi leen di woo képp ku supporteeru baari nag képp ku supporteeru baari dan lay ñaan yàlla Papa baari Bary bu dee bëre luy soonu Grand bu kenn tàngal bu kenn yëngal ndax fii ñi fi nekk ñëpp doomu Grand Yoff lan suñuy papa ñoo fi nekk ak suñuy yaay ak suñuy ndijaay ñun bëgguñu violence non violence la loolu bëgg képp ku supporteeru Bary baari rek su Bary dee bëre rek na seddu gi ba mel ni galaas bu ñu demee stade nag booy waaye nag booy yëngal ci kaw paare xaj ci suuf bilaa wala wa waaw. moom mu wane fula ak fayda man ma wane fula ak fayda. bi tasaar bi fii ba jóg dina barke sëñ Bamba dinaa a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise.